bu PM tëboon assemblée dem cëf ko ci biti. non désaveu la ça n'engage que lui. c'est pas une DPG en tout cas deful dara d'accord. mu ni meeting meeting bi mu defoon. <laughs> loolu mu ngi considéré comme DPG pas du tout. <laughs> ok mun la DPG c'est fait à l'Assemblée nationale devant les députés. donc feneen fu ko Ousmane Sonko defee leneen la def. amul DPG. ok day teel leer na loolu moom il